Eh, suñu benn baay bu dëkk ci Tiwaawan nee na dama xëy rek sa baay Abdou may ma jabar ca Ndar ñu ni naa ñëw jël ko ma dem nag eh, mosuma dem Ndar xaw ma yooyu fekk ñu togg re reeru cere wante man eh, cere siim laa xam ma gis cere ji kenn siimu ko nee na ma jaaxle lool waaw te it fasuma yéene ku ko xam ci man ndax ma it bëgguma weer sama bopp waaw nee na nit ñi tibb sax ma it ma tibb sax wallaay nee nag ma am lu ma yëg muy daw ci sama biir gémmiñ ma ne ah kii de yal na ci yàlla sutura wallaay nee na waaye ci yaru mag rek fa suma yéene ñi ci ndab li yëg ko maa ngi koy napp rek waaye mu ni ma dafa mel ni dafa xawar a tax waaw bu ma ko nappee fii mu dem fële waaw nee ma napp ko fii mu dem fële waaw nee ma dajale suma gémmiñ yépp nag jàpp ko waaw nee fas yéene pour jël ko ci sama càmmoñ am fu ma ko dugal rekk ba làqu xool ko ba xam lan la wallaay nee na fi ma koy nappe rekk mu ne rajax ci sama gémmiñ ma ni wuy sama ndey nee na ndeke sama jabar nànd na ko bu yàgg ne mu xawee ca kaw rek daanu ci suuf ree ba jóg ni ma nijaay ma ne ko mu ni ma lujum la waaw nee na keroog laa jëkk dégg baatu lujum wallaay ndeysaan waaye ba ci lekk eh, buñ la ko jàngalul rek àdduna tukki wallaay